Sénégal lu jëm ci wàllu taxawaayam rek ngir koom gi gën a mën a suqaliku rawatina ci déndu Afrique jaarale ko ci ay projet yu mag a mag loolee waral nag tey jii ñu amal ci moom ab portrait daal di koy dippee nag homme du mois waaye keneen ki nga xam ne rek yéenekaay yu bëri dellu suwaat nañ ci moom ñu mën a jàpp ne bokk na ci homme du mois yi mu di président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi di enquête ma ngay enquêté nag jëm ci manœuvre yi nga xam ne rek jamono ji mu ngi koy amal nag bi nga xam ne rek woote na ko ngir jàmm ak na ma nga cey wone dogu gi mu dogu ngir lu ni mel mën a antu ko defee ñu daal di am jàmm ci réew Sénégal ba mën a organiser élection yi ci jàmm ak leerange yéenekaay bi di samp laaj ne ana ñan ñoo nar a participer ci boobee dialogue dellu siwaat na ci wàllu transition bi nga xam ne rek war nañ koo amal ñaari fan ci weeru avril lu mu ci mënti doon daal moom président Macky Sall nag ma ngay indi ay leexal ci l'observateur xamle nag li waral mu jël ay responsabilité am nag ngir dàq yi la élection ma ngay ñaax ñi fare ci langue politique bi ne nañu investir nag lii di terrain bi def ab bloc ci seen ay candidat ngir mën a waajal dialogue bi nga xam ne rek moom la ñuy amal ngir mën a jàll ci ay élection laas yëglekaay moom di ñu xamal ne président Macky Sall nag ubbi na lépp loo xam ne rek mooy ay yoon yu ko mën a may nag ñu daal di yegg ci boobee dialogue jaarale ko ci ab document boo xam ne rek ma ngay leeral taxawaay gi mu am rek ci waxtaan nag bépp acteur politique ma ngay dëggal nag confiance bi mu am bën a gën a sii ci élimaanu jëwriñam bii di Amadou Ba na ngay nag lu jëm ci bàyyi ñi nga xam ne ay détenu politique la ñu nag mel na ku koy dëggal nag la solo yëglekaay di gën a duut baaraam ci confiance bi nga xam ne rek moom président de la république am na ko ci élimaanu jëwriñam bii di Amadou Ba yéenekaay bi nag di xam ne ne njiitu réew mi daal ma ngay gën a wone nag position jëm nag ci ñàkk bokkam ñeel élection présidentielle yi moom njiitu réew mi nag ma ngay xam ne ni daal dina def kem kàttanam nag su ko defee mu daal di taxawal nag ab programme boo xam ne rek dafay indi dal ak jàmm fii ci réew Sénégal jàmm wala safaan wi lu mu ci mënti doon daal libération moom ma ngay xam ne nag ni président Macky Sall moom ba nag ni nag ma nga ca position bi nga xam ne rek ca la nekk muy tuxal gi ñu tuxal élection yi waroon a amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février donte ne nag ay ñaxtu moom ñu ngi koy nemmeeku ci réew Sénégal ak ca biti réew waaye terewul nag ma ngay sàkku ci gouvernement bi ci ab conseil des ministres bu ñu doon amal nag ngir ñu jël lépp luy ay matukaay ba mën a organise élection yi fukki fan ak juróom ci weeru décembre atum 2024 fekk jamono joojee nag candidat yi nga xam ne ñoo fare ci wàllu ku jëgi nag ña ngay defub dànk ñoom it di ne ni daal daa ñu woyal seenu campagne ba noppi nag di woote ci ab manifestation bu ñu fas yéenee amal aljuma ji lay doon yoon nag bés bi la jour dellu suwaat ne nag Macky Sall moom li ko ñor jamono ji rek mooy dialogue bi nga xam ne rek mi ngi koy woote jëmale ko ci ñiy farek moom ci langue politique gi waaye tamit nag lu jëm ci libération ñeel ay ni politique mbirum Ousmane sonk nag des na doon loo xam ne rek mi ngi jur ba nëgëni si ay jiixi jaaxa ci bopp askan wi lu mu ci mënti doon daal pouvoir bu Macky Sall moom jeex na tàkk Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass di xalif général bu lew na ñaseen nag moo ko xamle ginnaaw waxtaan wu yaatu wu mu suñu naataangoo yu Walf Quotidien ci biir yëgle kaay bi ne bëggatul gis sax kii di président Macky Sall Vox Populi ne du moom dong moo mënatul dara ci Macky Sall ndax ay dànkaafu jamono ji nag ma ngay bàyyeekoo ci candidat yi fare ku jege ginnaaw bi ñu toxalee élection présidentielle yi nag jàpp ko ci weeru décembre Thierno Alassane Sall di xam ne ni jamono ji nag ña ngay waajal yeneen i pexe ginnaaw bi ñu amee ay yéene taxawal ab cour constitutionnelle fii ci réew Sénégal docteur Cheikh Tidiane Dièye ne ay nit yu tekkiwul dara ay terroriste ak i rebelle ñoom ñooy menacer réewum Sénégal te ñooñee nag gis naa leen ca palais de la République ak lëkkaloo gi nga xam ne rek moo am jamono ji ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak waa Wallu ba tey ci biir yëglekaay bi rek Mame Boye Diao di xam ne ni nag situation bi ñuy dund fii ci réew Sénégal ab saaga la ci képp kuy sénégalais Mamadou Aliou Dia di candidat bu PUR nag ne dinañu def suñu kéem ba jàkkaarloo ak moom mi nga xam ne rek moo fi nekk di buur di bu mi te it nag daañu taxawal balaa yàgg dara ay plan d'action yéenekaay bi nag ne ku jegi jamono ji nag taxawal nañu FC 25 yéenekaay bi di Le Quotidien na candidat yi fare ku jegi kay booloon nañu daal di boole seeni doole doole ngir nag mën a taxaw lànkal li nga xam ne rek moo jëm ci tuxal gi ñu tuxal élection présidentielle yi ñu àddu ci leneen mu soxal tàggat yaram ak yéenekaay bi di Rewmi Sport àddu jëmale nag ci Europa League yéenekaay bi ne waa Olympique de Marseille ñoom nag fësal nañu seenub liste te boolewuñ ci Pape Gueye stade yëglekaay dellu siwaat ci CAN 2023 ni Edouard Mendy Crépin Diatta Pape Gueye ak Lamine Camara ñoom ñooñee nag mën nañ leen a jàppee na ñoo gën a xarañ ci gaynde yi nga xam ne rek ñoo nekk ci équipe nationale bu Sénégal suñu làmb dellu siwaat nag ci Sa